Euh, li ñuy wax mooy alhamdulilah ndax différent amoon na fii pendant presque de deux ans suñ diggante ak ñun artisan daar yi nekk fii si corniche bi ci village Cheikh Ibra Fall suñu diggante ak euh, Cheikh Ahmed Tidiane Seck euh, différent boobu comme ni ngeen ko gisee soo gisee lii yëpp ñu raser ko te coow jibul euh, dara xewu fi c'est parce que am na solution bu ci am ci diggante bi solution boobu nag am na ñu si def médiation ñu ci def médiation mooy di ci jiitu waa ministère de l'artisanat nga xam ne ñooy suñu tutelle def nañ ci médiation euh, waxtaan ci ak kii moom bërëb bi parce que effectivement moom moo ko boom parce que lu lu lu yoon wax rek lañuy mën a tënku ndax ci ñaari at yi dem nañu ak moom yoon ci ñaari yoon ba ñetti yoon yoon di ko jox dëgg waaye teewul it ba ñu demee ba nga xamante ni egg nañ ci cappaandaw la moom mu war a jël alalam ay médiation daal di ci am ci diggante bi moom it aussi ñu koy remercier de passage mu daal di daal di daal di engagé wu daal di dédommagé ñu fi nekk ñëpp kenn ku si nekk la fi defoon euh, dédommagement boobu am na kenn ku nekk jot nga la nga war a jot loolu moo waral ñu raser fii te. coow jibul waaye nag leneen da ci am parce que man mi may président bi te man maa doon représenté artisans yi si négociation bi ñun lu ñu jiital mooy que ni sàmm suñu métier sàmm suñu liggéey donc dédommagement baax na deloo la li nga fi defoon ci alal baax na waaye li ci ëpp ëpp solo mooy am feneen fi nga mën a toog pour liggéey mën a jaamu yàlla moom aussi nga xam ne moo fi moom mënoon na ko ci bañ a fekk mu daal di jëndaat beneen site au niveau de Lac Rose daal si recaser village bi yëpp foofu la ñuy dem jëndaat na fa beneen site à hauteur de plus de cinquante millions de francs CFA aménagé ñu ko. loolu nag amuñu amuñu ci fayam xam nga ku la dédommagé jox la sa alal nga dem mu ne du ma la bàyyi noonu dama lay utal nga dellu feneen daal di liggéey donc dañ ko si remercier mais surtout remercier aussi le ministère de l'artisanat bu ci bu ci dox ay tànku jàmm. ba tey lii yëpp mën a am te te te kenn kenn loru ci daal waaw amaana suñu wax loru sax moom mooy couleur waaye gis nañ ni def na ci lu baax ñu nit gis nañ ci kenn ku nekk gis na ci boppam loolu daal moom moo gënoon waral ñu ñu di leeral parce que aussi soo leeralul rek fii zone bi sensible la xam nga Corniche Ouest président dëkk fii à tout près autorité bi di jaar ñu romb di gis ñuy démolir ay ay ay ay barab ñuy démolir ay bâtiment donc il faut ñu waral xamal askan bi lan moo waral démolition yooyu am te dara dara dara dara jibu si parce que dafa am euh, accord bi am entre ñun ñu fi nekkoon occupants yi fi nekkoon bien vrai dañ ko occupé woon illégalement mais dafa am accord entre le propriétaire le vrai propriétaire ak occupants yi fi nekkoon ba nga xamante nii kenn ku nekk jot nga la nga war a jot ñaareel ba it wutal nañu site bi ñu war a dem pour mën fa mën a war suñu ay activité loolu mooy li xew fii ci ci corniche bi village artisanal Cheikh Ibra ex village artisanal Cheikh Ibra Fall loolu moom mooy li xew ñëpp d'accord nañ ne dañuy dem Lac Rose euh, waaw xam nga après recensement nga xamante ni recensement bi bàyyiwul kenn li ñu fi recensé mooy quatre vingt ateliers de production ñoo fi nekkoon atelier de production yi xam nga atelier artisanaux lu mu dee dee am chef d'atelier bi la propriétaire ak benn wala ñaari apprentis donc il y avait plus de presque 200 personnes yi fi doon liggéey ci 80 ateliers yooyu 78 ateliers 78 je dis bien 78 ateliers ñëpp d'accord nañ ne dañuy dem au niveau de Lac Rose léegi nag mu des fi ñaar ñaa nga xamante ni ñoom ba ñu ne dañuy jóg parce que jóg bi moom force la il faut mu leer parce que yoon moo li ko décidé te dernier délai bi le 15 janvier la ñoom bañ ñu ne dañuy jóg waaye dañoo ñaan ne nañ leen utal fu ñu mën a nekk fii ci Dakar bon su fekkee mën na nekk mu am su mënul la nekk site bi nga xam ne mooy lu officiel te nga xamante ni ku bëgg mën nga faa dem mooy site bu nekk Lac Rose mais daal sur quatre-vingts ateliers yu fi nekkoon soixante-dix-huit yëpp nangu nañ jóg dem euh, Lac jël nañ seen ay bagages xam nga site bi ñu war a aménager na la defar ko euh, te loolu yëpp moo si accompagner site boobu pour l'instant jël nañ seen ay bagages kenn ku nekk lañ la jot a dédommager ñenn ñi gis nañ ci bu baax a baax seen bopp. Euh, mën nañ ci dund en attendant mais dañu jël benn hangar aussi monsieur Seck aussi moo ko fayaat jël fa ñaari hangar yu mees denc fa bagage yi en def aménagement bi foofu mais mun naa wax ni ñëpp d'accord nañ ci parce que nous sommes obligés ñu d'accord parce que yoon aussi moo dogal ni moomuñu fii loolu mooy li fa xew. donc mën nañ jàpp ne monsieur Seck mais aussi def na loo xamante ni sax yoon may imposé ko mu def ko mais moom moo ndax jàppale leen. effectivement respecté ma engagement mais dem na au delà de ay engagement sax parce que li mu ci dafa jiital côté côté frère côté humain jàppale ni doomu aadama parce que xawoon na sax metti su ñun ba ñuy xeex ak ñoom moom pendant deux ans. ci kilifa goo dem ne diw la ñu amal affaire léegi lii laag laa dinaa la ah dinaa lañu jàppale mais ah nit diw da ko baax la te ngeen waxtaan ak moom donc euh, waxtaan bi bañ ko entamé te ministère daal di ñu siy jàppale à travers le conseil technique du ministre Dame Diop à l'époque parce que Dame Diop moom lañu ñu waxtaanaloon ci dossier bi la nouveau ministre ba mu ñëwee aussi yàqu ci dara daal di ñuy accompagner à travers son conseiller technique monsieur Saloum Ndiaye ñu daal di trouver cet cet accord mu def au delà de même ñun luñ ko doon luñ ko doon xaare parce que ku la jox xaalis wutal la barab bi nga bi ngay liggéeyee aménager la ko desatul dula dara. tax na nag ñun aussi en tant que collectif en tant que association bi moom bërëb boobu war fa dem ñu changer aussi tuuti euh, toogin bi parce que xam nañ ne Lac am na fa village artisanal donc ñaar fa dafa créer village artisanal euh, euh, amatul trop solo. mais dañ ko soppi parce que fii ay maître artisan ñoo fi nekk yoo xam ne def nañ ay vingt ans ay trente ans d' expérience si seen ay métier ñu daal di soppi projet bi dee ko def genre centre de formation professionnelle yoo xam dina mën a servir zone boobu man mi ko xam di xam foofu lu mel ni Kër Marème Meng Kër Bala Kër Maam Naar lu mel ne ñàgg pël wala ñàgg seen ndaw ya fa nekk bëgg jàng métier ñu mën a am centre bu ñuy jàngee métier sa centre boobu si ñu association waxtaan nañ Cheikh Seck lañ baax mënoo def lu dul rendre rendre thank you